بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين kon dañuy continuer ba tey ci séminaire bi ñu nekk nekk ci ñetteelu dars bi nga xam ne moo aju ci aqida kon dañuy bàyyi ustaas mu tàmbali incha allah
alhamdulilah rabbil alamin sax bi ajmain kon ñoo ngi continuer ci suñu téere aqidatu ahli sunnati wal jamaa bu cheikh mohamad ibni salih al usaymin démb ñu ngi taxawoon ci saxal ne yàlla mu ngi ci kaw tiim ay jaamam moom borom bi subhanahu wa taala peeg leen nekk ca kaw ñu tàmbali kon ci page 10 paragraphe bu mujj bi wa numinu bi annahu xalaqa alsamawati wal arda fi sittati ayamin summa stawa ala al arsh yudabbiru al amra wa numin dañoo gëm ni bi annahu moom yàlla xalaqa alsamawati wal arda moo bind juróom-ñaari asamaan yi ak suuf yi juróom-ñaari suuf yi loolu lépp fi sittati ayamin ci six jours léegi aaya bi li mu tudd fii yàlla dafa bind asamaan ak suuf ci six jours dafa globalisé mais yàlla suuf ak asamaan nekkul suuf ak asamaan kese la bind ci six jours suuf ak asamaan nit ñi ak jinne yi ak mboolem créature yépp mi ngi leen bind ci six jours léegi jours yi ñaata la sept yàlla bind lépp ci six jours kon am na benn jour bu bokkut ban jour la jàng ngeen ko fi jàngaat ah vendredi vendredi mooy jour bi yàlla mujjee bind suñu maam aadama la mujjee sàkk vendredi ginnaaw tàkkusaan parce que xam nga li logique mooy comme aadama dafa war a ñëw dund ci monde bi balaa aadama di ñëw lépp war naa pare yow booy toxu sa kër booy toxu kër gi du pare du kër gi day pare nga door a toxu ah kër gi day pare lépp pare nga door a dem nga xam ne boo demee environnement bi day dalay may nga mën fi dëkk léegi aadama mënul ñëw fii te amul àdduna amul amul asamaan amul suuf amul ay géej amul ay animaux mënul nekk moo tax yàlla dafa tàmbale ci asamaan ak suuf ci ñoom ñaar la tàmbale ci ñoom ñaar la tàmbale yàlla dimanche la commencé bind dimanche jour dimanche léegi boo jëlee dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi ñaata jour la ban jour moo bokkul samedi bu dee yahud yu kàccoor yi yahud yi dañoo kàccoor ñu ne yàlla dafa noppalu jouru samedi yàlla du sonn bay noppal ma kuy sonn mooy noppal mais yahud yi ñoom dañoo bokk ci ñi yab yàlla comme ni ko alxuraan di waxe lu ne dañ koy wax yàlla ñoom yàlla dafa nay ak lu ne dañ koy wax yàlla ñu ne yàlla 6 jours 7 jours la woon mais yàlla dafa noppalu benn fan bi sunu borom du noppalu parce que yàlla du sonn du sonn leer na kon sunu borom moo préféré tàmbali dimanche daa di achever liggéey bi vendredi loolu ñu war ci jàng lu bëri mooy est-ce que yàlla ci baatu kun rek mënutoon wax kun rek lépp am mënoon a nekk wala mën da nekk mënoon naa nekk mais yàlla daf ñuy jàngal ni moom mu ëpp kàttan ñëpp mën lépp mën a def lépp ci fraction de seconde lépp sotti lu toll ni aduna bi ko yàlla di bind dafa jël temps bind ko ci 6 jours loolu li muy tekki mooy lépp looy def da nga koy planifier jël le temps nécessaire ah bañ a yàkkamti bañ a param-parami loolu soo ko defee du jur résultat bu baax da ngay jël sa temps mbir mi nga jox ko temps nécessaire bi nga xam ne moom la soxla yàlla jël temps bind asamaan ak suuf ci 6 jours tàmbali dimanche pare vendredi ginnaaw tàkkusaan te suñu maam aadama la yàlla mujjee bind nit nit la yàlla mujjee bind loolu mi ngi ci xadis bu wér bu ñëw ci ci saxih muslim ak ci buxaari ci kitaab badul xalq muy yàlla naka la tàmbalee bind bindaafoon yi moo tax kon mu ni dañuy gëm na suñu borom bind juróom-ñaari asamaan ak suuf yi mbokk yi xool leen asamaan nu mu toll keroog lan lañ fi waxoon keroog lan lañ fi waxoon kenn xamul nu asamaan toll superficie asamaan superficie bi ah longueur largeur volume bi périmètre bi kenn xamu ko kenn xamul nu mu toll yàlla rek ko xam léegi xoolal asamaan soosu benn bi 2 3 4 5 6 ba 7 yépp yàlla bind ko ci benn fan pare ci beneen jour bi am leneen lu mu bind pare ci beneen jour bi am lu mu bind ba 6 jours yi mat léegi yow nga gis ab bâtiment rek bâtiment bu toll nii tey boo ko joxoon ab société pour mu tabax ko ñaata weer lay def gars yi pour ñu defar fii tëli tëli ñaata mois lay jël 18 mois ak 18 mois xam nga dafa bëgg bokk ci li gars yi bëgg 18 mois la chantier bi déroulé 18 mois la ñuy defar tëli bi 18 mois la ñuy defar centrale électrique bi 18 mois la ñuy defar forage bi léegi te loolu lu ndaw la lu tuuti la périmètre am lu tuuti la mu jëlal nit ay ñaata ay mois des fois sax mu dem ay ay année année ay année année fii am na fi chantier yi fi gars yi taxaw building administratif bi ñaata ñaata ñaata ñaata temps la jël 2012 ba léegi bee gars yi di te nekkul tabaxaat réformé la réformé dañ ko doon réformé waat ñaata temps la jël sphère ministériel ministériel yi nekk jam ñaajo ñaata temps la jël bi ko gars yi defar presque lu tàmbalee 2012 13 ba 2017 suñu borom moom bind asamaan ak suuf ak mboolem créature yi fi nekk ci 6 jours 6 jours xoolal asamaan nu mu toll koo fi waxoon di tabaxal rek tabaxal benn benn benn plafond boo xam ne day jël géejawaay rek wala pikin plafond rek pour géejawaay bi yépp yaakaar na ñaata temps lay jël yaakaar naa ki ko tàmbali sëtam dina ñëw sëtaatam ñëw sëtam sëtaatam ñëwaat te du pare lu toll nii rek lu tiim géejawaay rek wala lu tiim pikin kese nga xool asamaan si tiim monde bi benn ñaar ba si ba sat yépp suñu borom defar ko ci six jours wallahi li muy wane mooy kàttanu yàlla puissance am force yàlla dooleem mën-mënam nga xam ne yàlla du caaxaan yàlla du caaxaan lii ku ko mën kooku du ko ñuy fontoo yàlla du caaxaan mbokk yi ñu bàyyi ci xel bu baax loolu li muy wane li mu lay wane mooy màggaayam yàlla màggaayam yàlla ko màgg la tur bi mu jox boppam muy al azim dëgg la al azim dëgg la yàlla ku am grandeur la ku màgg la màggaayam googu da koo prouvé da koo wane ci ay acte ay mbir yoo xam ne da ko fay def ci monde bi ñépp mën ko gis moo tax mu ne xalaqa samawati wal ard moo bind juróom-ñaari asamaan yeeg suuf yi fii sittati ayam tekkiwul ñoom rek waaye ak lépp luñ àndal nag fii sittati ayam ci 6 jours juróom-benni fan summa stawa ala al arsh ginnaaw gi mu kawe ci kaw arsham yu dabbirul amra muy tàggat mbir yi di ko doxal mu ne wastiwaahu kawe yàlla ala al arsh ci gongam uluwuhu alayhi mooy yàlla dafa kawe boroom xam suñ ne ala mooy irtafaa mooy tiim na kawe na tiim na léegi yàlla naka la nekkee ci arsham naka la fa kawe dafa toog dafa taxaw dafa tëdd ah wala naka la loolu kenn du ci dugg lan moo tax mooy yàlla xamoo nu jëmmam mel léegi soo xamul jëmm yàlla nu mel munoo ko jëmmal munoo ko jox jëmm parce que yéen a ngi dégg wax ji yàlla xamoonu jëmmam mel comme xamoonu jëmmam mel munoo ko jëmmal léegi nit man li yàlla bind rek créature yàlla bind am na ci yoo xam ne ba léegi nit xamul nu mu mel jinne jinne ku xam nu jinne mel am na ci yéen ku xam nu jinne mel malaaka ruu kan ci yéen moo xam ruu nan la mel am na ci yéen ku ko xam léegi xel mas ngeen gis xel xel xam ngeen nu mel voilà kon yàlla rek bind na ay créature waxuma moom mais ay créature yi fi nekk ñu gëm ne am na ñun ñu xam ne am na mais créature yooyu kenn xamul nu mu mel science sax mënu laa wax nu mu mel science ci boppam mënu laa wax jinne ni mu mel mënu laa wax nu ruu mel mënu laa wax nu xel mel mënu la ko wax parce que yàlla su bàyyee doomu aadama yi ñu xam lépp lépp nit ñi am ci connaissance kon nit ñi dañuy tolloog yàlla xam-xam te nit ñi waruñoo tolloog yàlla xam-xam il faut yàlla am loo xam ne moom rek moo koy xam kenn mënu ko xam lu développement am lu aduna avancé avancé xam-xam la boo xam ne suñu borom moom rek moo koy jagoo keneen du ko xam parce que bu ko ñëpp xamoon kon léegi yàlla moom nit ñi ñoo yem ci science li yàlla xam yëpp nit ñi xam nañ ko moo tax yàlla dafay am lu muy xamal nit ñi am loo xam da koy téye garder pour moom mënoo dañ kumpa luñ bët soba sob jaay intelligence ba àgg fa mënul nekk yàlla da ko téye pour boppam loolu foog nit ki bàyyi ko xel moo tax sunu borom subhanahu wa taala nit ki amul ci moom idée amoo ci moom benn image comme ni nga ñàkkee idée ci xel ñàkk ko idée ci wàllu ruu amoo ci idée ñàkk idée ci wàllu jinne des fois nga gis ay mike gars yi di jouer ay jinneeg ay yu kenn xamut rek dañoo bind lu leen neex rek des fois malaaka ñuy wane benn waaye am ay laaf di kii dañoo bind lu leen neex parce que yow lii mosoo ko gis amoo ci idée yaa toog imaginer lii sa imagination la yaa ko fi teg mais melul noonu parce que il faut nga am idée ci dara pour door ko mën a defal benn portrait robot portrait robot pour nga mën ko def mbir mi da nga ciy am idée soo amee idée xam nu mu mel nga ñëw dessiner def portrait robot mais loo yoo xam ne yow mosoo ko gis da nga jàpp ni yaakaar ni nii la mel da nga ko yaakaar mais est-ce que noonu la mel yaa ko yaakaar mais est-ce que noonu la mel yow sa yaakaaru bopp la yaa jàpp ne nii la mel mais réellement melul noonu. léegi yow li nga yaakaar ne nii la mel ak mbir mi nii la mel ça fait deux yow yaa xool rek ci sa bopp xalaat rek nii la mel moo tax keneen bu ñëwee moom tamit day jàpp ne affaire bi nii la war a mel mu def beneen façon sa bos ak bosam du bokk parce que kenn ku nekk ci sa xel nga sukkandiku te mbir yooyu du mbiru xel xel du ko lijjanti loolu foog ñu bàyyi ci xel kon sunu borom loolu aussi beneen beneen beneen tegtal la beneen dalil la preuve la buy wane ni doomu aadama yi wax ni existence su yàlla amul parce que mënuñu mënuñu ko découvrir ci sens yi te yow gëm nga ne xel am na te xel mënoo ko découvrir ci say sens gëm nga ne li di li ñuy wax am am am na muy ruu te ruu googu mënoo ko découvrir ci say sens loolu tegtal buy gën a dëgër la buy wane ne ki bind ruu bind li nga xam ne mooy xel te amoo ci ñoom accès mënoo leen gis kon moom waxi nopp wala déet loolu moo tax kon kaweem moom yàlla ci arsam wala nekkin ci kaw arsam ñi mu fa nekkee nu yelloo ak jëmmam ak màggaayam mais kenn du ci joxe détail parce que ku ci joxe détail wax wax lu dul dëgg parce que moom mi nekk ci kaw ars yàlla moom ci boppam waxul nii laa fa nekkee kon keneen ku ñëw naan yàlla nii la fa nekkee foo jëlee xam-xam bi yow xam-xam boobu foo ko jëlee science boobu ku la ko jox yaa ko créé en toute pièce yàlla waxul naka la fa nekkee kon noppi ci dane kawe naa fa kawe kawe na fa naka la fa kawee xool nañ taxi gisuñu fu mu ko waxee dañ naan kawe na jeex na nan la kawe xamuñu nan la kawe xamuñu duñ ci dugg bi zaati yi ci jëmmam uluwan kawe goo xam ne xaasan goo xam ni gu yell la wala goo xam ni gu gu mu jagoo la yaliqu bi jalaalihi goo xam ne moo yell ci rëyam wa azamati ak màggaayam laa yaalamu kayfiyatahu kenn xamul naka la fa nekkee melokaan bi dëgg-dëggin ba illa huwa ku dul moom yàlla wa numinu dañuy gëm bi annahu taala ànd ak ne moom yàlla mu kawe mi mi ngi ci kaw ma a xalqihi mi ngi nekk ak mboolem mbindaafoone mi tiim leen di leen gis xam liñ nekk di dégg li ñuy wax xam nuñ yendoo xam nuñ fanaanoo xam nuñ xëyee xam nuñ gonte lépp lu jaam yi def suñu borom xam na ko wa ala arshi te pourtant mi ngi ci kaw arsham ci kaw gongam yaalamu ahwaalahum xam na seen i mbir seen i situation wa yasmaw aqwaalahum fa muy nekk lam kawe-kawe mi ngi dégg seen i wax ku làkk bambara dégg na ku làkk soose dégg na ku làkk joolaa dégg na ku làkk pël dégg na ku làkk soninke dégg na ku làkk chinois dégg na ku làkk anglais dégg na créole portugais espagnol lu waaye wax dégg na mais loolu loolu yéeme na waaye li ko gën a yéeme mooy nit ñu bëri suñ ñëwoon fii ne ñun suñu objectif mooy nañ ñëw pour perturber yàlla dañ ko bëgg a perturber naka la mooy ñun ñëpp nañ waxandoo saagandoo kii saaga ci saraxule kii joolaa kii pël kii séeréer pour yàlla bañ a xam li ñuy wax balaa ngay wax xam na li nga bëgg a wax moment bi ngay wax xam na ko soo noppee xam na li nga wax parce que nit nit moo mënul dékku ay nit di waxandoo en même temps cinq personnes bu ñëwoon wër la kii di wax kii di wax da nga saay bu leen ma dof la waaye xaar leen tuuti yow waxal ba pare mu wax nga ne waa d'accord yow waxal mu wax yow waxal mu wax parce que mënoo mënoo jàppandoo ay wax en même temps mais man moment bi may wax nii ñaata million million personnes ñooy wax moment bi may wax nii man nekk di wax ak yéen am na kuy wax fii ci bunt bi am na kuy wax fee am na kuy wax ci biir classe yi am na kuy wax ci jàkka ji télé bi am na koy wax am na ku nekk ci cérémonie am na ku nekk ci conférence rajo baa ngi wax télé baa ngi wax ah gaañaa nga stade ñépp a ngi waxandoo am na benn détail bu du ci yàlla yàlla du caaxaante ah suñu borom du caaxaan ñëpp di waxandoo en même temps ak façon làkk bu ku nekk dégg ak noo ko làkkee am na koo xam ne li muy làkk boo moytul yow boo ko déggoon da ngay ree ku nekk ak na ngay waxee mais lépp suñu borom mu ñu ko maîtriser téye kenn ku nekk xam na avant ngay wax loo bëgg a wax moment bi ngay wax lettre yi ngay wax xam na lu ci nekk lan la ak loo ci jublu moo tax balaa balaa kenn nekk yàlla di nga wax lu set yow juróomi nit bu ñu la wëree wax nga daw yàlla monde bi yëpp di waxandoo en même temps muy dégg sans dérangement dara dérange wu ko ci ba pare ànd ceeg maîtrise totale kenn ku nekk xam na li nga wax lu baax ak lu bon ku saaga ku xas ku jëw ku rambaaj ku yàq diggante ku sos lépp xam na ko ku zikri ku jàng alxuraan ku digle lu baax ku tere lu bon lépp xam na ko waaw kooku dinañ ko wutal morom kooku dinañ ko wutal morom kooku du am mënul am morom mënul am morom kon mi ngi xam jaam yi seen situation li ñu nekk jaam yépp yow sa bët boo ko fixé woon benn boor di xool rek booy xool fii di xool fii di sonn booy xool fii di xool fii mënoo contrôler benn côté direction nga mën a xool léegi monde bi li fi nekk lépp nag ñi nekk ci guddi ñi nekk ci bëccëg ñi ne ci ngoon ñi nekk suba teel ñi di door a yeewu ñi di waaj a tëddi ñépp ku ci nekk sa situation yàlla xam na ko mbokk yi loolu lu yéeme la ah loolu lu yéeme la caméra surveillance lu mu aay aay aay am na côté yu mu dul gis am na côté yu mu dul jël am na détails yu koy rëcc caméra bi boo jaaree ci suuf sax du la gis fële lay jël jaaral ci suuf du la gis borom bi subhaanahu wa taala moom détail di ko rëcc amul wa- wax bu koy rëcc mais détail acte bu nit di posé boo xam ne da nga naan xaaral ma sàcc yàlla def ko gaaw balaa muy gis sa bopp ngay nax loolu moo tax mu ni yaalamu axwaalahum xam na seeni mbir ñoom ñépp kenn ku ci nekk wallahi li nga nekk yàlla xam na ko dara rëccu ko wa yasmaw aqwaalahum mi ngi dégg seeni wax jaam yi yépp li ñuy wax lépp lépp ak ci façon làkk yi ak coow yi lu mu bëri bëri kenn mënu ci perturber yàlla virgule mënuñu ko ko perturber li ñuy wax lépp xam na ko mbooloo mu toogoon fii di xuloo di waxandoo beneen mbooloo nekk fee di wax di xuloo keneen beneen mbooloo nekk seen wet di wax di xuloo mi ngi xam li ñuy wax wa yara afaalahum mi ngi mi ngi gis seeni jëf mi ngi gis doomu aadama yi lu ñuy bëri bëri kenn ku nekk li ngay def yàlla mi ngi la tiim mi ngi koy gis détail rëcc ko ki nekk Afrique ak ki nekk Amérique ak ki nekk euh, Océanie ak ki nekk Asie moo ci yem kenn ku nekk li ngay def seen na la mi ngi koy gis wa yudabbiru umurahum te kenn ku nekk moment bi nga nekk yàlla moo gérer sa mbir mu ngi lay jox nga noyyi mi ngi lay may nga xool mi ngi lay may nga dégg mi ngi lay may kàttan goo yëkkatee sa loxo goo ko wàccee kàttan goo jógee dem goo dikkee lépp yàlla moo moo gérer sa mbir yow ak sa moroom ak sa moroom ba ñëpp jeex ba doomu aadama yi ci yëpp jeex moo tax mu ne way dabbiru umura umurahum mi ngi gérer seeni mbir wa yarzuqul faqira yàlla mooy wërsëgal ku ñàkk Sénégal bu waxee wërsëg rek alal la wërsëg soo ko waxee rek nit ñi seen xel ci alal lay dem wér-gi-yaram wërsëg la xam-xam bu leer wërsëg la nga am àndandoo yu baax wërsëg la doom ju baax wërsëg la soxna su baax wërsëg la alal ju lew wërsëg la nekk am chance dund diine nekk ci njub wërsëg la tawfiq la kon wërsëg dafa yaatu gën a yaatu alal alal benn partie la ci wërsëg mais wërsëg gën a yaatu loolu wa yajburul kasiir yàlla mooy taxawu ki faible al kasiir ay ad daif mooy ki nga xam ne dafa faible soxla ndimbal jaaxle nekk ci ay tiis ay tolof tolof suñu borom moo koy xettali yuktil mulka man yasha yàlla mooy jox nguur ku ko sob ñaata ci ay doomu aadama mu suñu yaakaar ni dinañ nekk buur dinañ falu suñ borom fal leen ci ay circonstances yoo xam ni ñoom sax dañuy falu mais duñ gëm ne man falu naa mais yàlla moo bindoon ne ñoom dinañ falu dinañ dinañ dinañ dinañ ñam nguur dinañ nekk président de la république wala nekk ab président assemblée wala nekk ab député wala nekk ministre wala nekk benn PDG wala nekk benn PCA ça dépend yàlla jox na leen benn poste boo xam ne ñu ngi ci yëg nguur di ci nguur te yaakaaruñ ko woon kon yàlla moo koy joxe yu'til mulka man yasha qul illahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha malikal mulk yàlla moom moom nguur milkam la moo ko moomee la ma nguur malikal mulk moo ko moom tu'til mulka man tasha ku ko neex la koy jox nag waaye da koy nangu tamit ci ku ko neex nguur moo koy joxe waaye da koy nangu yàlla da koy jeexal parce que nit dafa bëgg nguur du doyal nit dafa bëgg nguur du doyal mais nit ñi li ñuy bëgg bëgg nguur africain moo ci raw africain ñoom pouvoir da leen di dofloo ñoom ñoom dañoo am lu ñu tuddee soif maanaam dañoo mar nguur ku ko ci xas ba ne nit téye da ngay naan doo màndi da ngay guux di gën a yokk moo tax nga mën a fekk nit nekk cinquante temps wala 30 ans wala 45 ans nga nekk ko président de la république tu n'as rien foutu defoo fi dara xoolal un président comme le président camerounais Paul Biya ñun dañoo judd fekk ko fi màgg fekk ko fi di waaj a màggat ñu ngi fi toog te parewul pour dem ñu ngi waaj a changer constitution bi pour toogaat loolu kéemtaan la loolu nulle part ailleurs doo ko fekk fenn fu dul Afrique Afrique rek africain moo mel noonu. fekkante naa Ronald Reagan Reagan ba léegi mi ngi fi diggante bi diggante Reagan ak léegi yaakaar naa léegi mu jege dix présidents américains moom ba léegi mi ngi fi toog un seul président doy waar kon yàlla day jeexal nguur parce que bakkaru nit dafa bëgg nguur léegoo leeg yow yaa dul doyal léegoo leeg ñi nga àndal ñoo dul doyal ñu naan la bul bàyyi bul bàyyi te da nga fàtte ni yow yaakaaroo woon sax am ko yàlla jox la ko kon doylul boo doyloo sérieux yàlla mën na la ko joxaat waaye soo fekkee nag doyaloo yàlla moo naan la xam naa ne doyaloo léegi maa ko jeexal tanziul mulka mimman tasha da nga koy yàlla ne naza mooy dama koy rocc jeexal ko maa koy jeexal yàlla ne maa koy jeexal mooy léegi-léegi léegoo léeg nit yoru nguur ba jékki-jékki daanu ñu laaj ko yow noo perdre nguur gi mu ne xaw ma sax maîtriser wu xaw ma lan moo tax mooy yàllaa ko jeexal des fois da koy jeexal ci indi ay circonstances nga jóge fi par force des fois ñu coup d'état des fois nga daw des fois mu indi benn situation climat sociopolitique boo xam ni da lay pousser nga bàyyi par force loolu lépp daf koy def moom borom moo tax mu ne moom moo koy jeexal kon yu'til mulka man yasha ku ko neex la koy jox wa yanzi'ul mulka mimman yasha da koy rocci da koy nangu ci ku ko neex wa yu'izzu man yasha yàlla mooy teddal ku ko neex des fois nga jékki-jékki gis benn waay suñu borom yëkkati ko jox ko ay teraanga teraanga xam-xam jékki-jékki amutoon dara yàlla yëkkati ko may ko xam-xam ba ñëpp yéemu ci xam-xamam jékki-jékki amutoon dara nekk pauvre yàlla jaar jékki-jékki daal di koy propulser ci alal may ko alal mu nekk au devant de la scène ñëpp gis ko fan ko dugg ko ngir alalam mu ciy jaamu yàlla di def lu baax mun am teraanga googu jékki-jékki yàlla may ko mbooloo jékki-jékki yàlla may ko ay grade ay diplôme ak yeneen ak yeneen ba mu yëkkati ko loolu lépp dafay am moo tax wa yu'izzu man yasha yàlla mooy teral mooy teddal ku ko neex waaye way zillu man yasha yàlla day suufeel nit toroxal ku ko neex ñaata ci ay nit ñoo fi nekkoon yàlla may leen nguur ñu bew yàlla toroxal leen firawn exemple la ci namruus exemple la ci qaaruun exemple la ci ku yàlla mayoon alal mu bew inna qaaruuna kaana min qawmi muusa fa baga ci nitu yonent yàlla muusa la bokkoon mu bew bew ci alal ji parce que am na ñoo xam ne ay nit ñoo xam ni yàlla ci mbaaxam du leen may alal parce que bis bu leen mayee tuuti alal ñu bew yàlla bañ ñu beew yàlla def leen ay pauvre type ñu nekk di pauvre ba keroog ñuy faatu parce que bis bu ñu amee tuuti alal beew ci kaw doomu aadama yi ñoom seen seetaane foofu la nekk bis waa ji amoon alal tuuti dootul tal di fekkee conférence yi julli jàkka juróom yi amatul temps c'est-à-dire dama am conteneur bu war a ñëw nii moom laay gàttandu ji dama am ay gan yu ñëw ñoom laay jëli dama am nangam amati temps wu jàng temps wu jaamu yàlla fréquenté bërëbu xam-xam yi place u xam-xam yi du amati temps yàlla xam ne lii da koy lor baaxul ci moom suñu borom xañ ko ko parce que moom foofu la seytaaneem nekk moo tax suñu borom léegoo léeg nit am daraja am alal am xam-xam am yeneen ak yeneen yàlla toroxal ko ci xam-xam boobu ndax ca kàccoor gu ne ci moom yàlla toroxal ko ci alal gi ndax ndëngate gu ne ci moom yàlla toroxal ko ci garaat ak pouvoir bi mu amoon ngir ñàkk a jaamu yàlla gum ci ñàkk a jaamu yàlla ak bew gum ci bewoon alquran li mu nettali ci histoire ay nit ñoo xam ni suñu borom da leen yëkkati woon wàccee leen kenn xamut nu mu toll moo tax mu ni way zillu man yasha bi yadihi al xayr yàlla ci loxoom la yiw ak mbaax nekk wa ala kulli shay'in qadir yàlla mën na lépp yàlla mën na lépp léegi nag mën lépp googu boo delloo ci borom xam-xamu aqida yi ñoom dañ naan la rek yàlla amul loo xam ne yàlla am na ci li nga xam ne mooy impuissance lu yàlla mënut yàlla lépp la mën boo ñëwee ci borom xam-xam philosophie ñoom ñu am lu ñu ci dugal ne la yàlla mën na lépp mais mën lépp googu mooy ci al mumkin mooy lu mën a nekk lu mën a nekk lépp yàlla mën na ko mais lu mënta nekk ndax yàlla mën na ko nga ne leen exemple ñu ne ndax nit mën naa gàtt njool en même temps nit koo xam ne en même temps dafa gàtt njool nit koo xam ne en même temps dafa xees ñuul am na nit koo xam ne dafa xees mais en même temps dafa ñuul gis ngeen ko waa ji dafa xees mais dafa ñuul en même temps léegi ñoom ñu ne la est-ce que kon yàlla mën na loolu nit ku xees en même temps ñuul wala nit ku gàtt en même temps njool wala nit ku tuuti en même temps rëy philosophie dañ lay dugal foofu ñu ne est-ce que yàlla mën na loolu léegi ñu ne loolu ci kan la mënta nekk loolu ci kan la mënta nekk ci nit parce que ci imagination wu nit mënta nekk c'est pas possible nit mënoo imaginer yow boo fi doon xalaat nit ku war a xees ñuul ñuul en même temps nan la war a mel boo moytuwul léegi nga feebar parce que da ngay xalaat ba xel mi sonn doo xam nu mu war a mel nit koo xam ne day rëy njuut tuuti en même temps façon nit boobu nan la war a mel nga ciy xalaat bu leen ci xalaat de léegi loolu da lay sonal daf lay sonal lu tax mooy yow ci sa imagination ci xelu nit c'est pas possible waaw d'accord c'est pas possible ci nit mais est-ce que lu possible lul ci nit possible lul ci yàlla est-ce que yàlla nit la déedéet loolu ci nit la moo tax yow philosophe bi koy wax loolu yow ci yow la yow yow en tant que nit en tant que philosophe d'accord ci yow c'est pas possible ci ci mentalité ak ci intelligence ak ci capacité nit ci xalaatam mais yàlla du nit léegi li possible ci yàlla ak li possible ci yàlla yow xamoo ko man xaw ma ko kooku domaine am la domaine réservé la dañ koy bàyyee bul ci dugg moo tax philosophe yi des fois dañuy lijjanti ba bëgg a lijjanti mbiru yàlla loolu nag moo leen sànkoon kon suñu boroom ci wàllum al aqida wallahu ala kulli shay'in qadir yàlla dafa wax ne lépp laa mën dañuy gëm ne yàlla lépp la mën moo ko waxal boppam ah mu ne man kaana haza sha'nu koo xam ne lii mooy mbiram moom yàlla kaarama a xalqihi xaqiqatan mi ngi nekk ak ay créature am bindaa foona mi mi ngi nekk ak ñoom dëggantaan koo xam ne mi ngi lay dégg mi ngi lay gis xam na looy def sa situation yépp xam na ko kooku mi ngi nekk ak yow wala nekkut ak yow mi ngi nekk ak yow ci xam-xamam wa in kaana fawqahum donte mi ngi ci kaw ala arshihi xaqiqatan ci dëgg-dëggam mi ngi ci kaw ci kaw arsham yàlla laysa ka mislihi shay parce que dañuy gëm ne mi ngi nekk ak jaami ci xam-xamam jëmmam mi ngi ci kaw parce que moom du lu ñuy nuróoleeg dara bu ko jéem a imaginer di ko xalaat ak di ko comparer ak lenn naan nu mën a nekkee fii nekk fii en même temps laysa ka mislihi shay dara melul ni moom wa samiul basir day dégg di gis na muy déggee na muy gisee nuróowut ak la dara di déggee nuróowut ak na dara di gisee mu ni wala naqul du ñu wax kama taqulul xululiya ñi nga xam ne ñooy ahlul xulul dafa am ñaari pas-pas yoo xam ni yu mat a bàyyi xel la te bokkuñu ñoo nuróo c'est-à-dire résultat final bi ñaar benn la mais ñoom ñaar seen point de départ du benn dafa am lu ñuy tuddee xulul am lu ñuy tuddee ittihaad ittihaad ñoom dañuy jàpp ni yàlla day dem ba jaxasoog jaam bi mooy ittihaad nit ki yàlla day dem ba jeex ci nit ki ñu nekk benn ñoom ñaar mais su dee xulul ñoom ñu ngi ko jëlee ci hadis bi wax ni bi yonent bi alayhi salaatu salaam wax ni yàlla day wàcc ci asamaanu adduna guddi gu nekk bu demee ne bu fekkente ni dernier ceeru guddi bi ñëw na yàlla day wàcc asamaanu adduna léegi ñu ne yàlla buy wàcc asamaanu adduna c'est-à-dire wàccuñ nii rek pour wàcc mais yàlla day wàcc yàlla le fait que muy wàcc jaam bi moom àgg ci lu ñu tuddee fanaa mooy ji jeex ci yàlla di yéeg di dem léegi yàlla di wàcc yow ngay jeex di yéeg di dem léegi nag lan mooy am finalement lan mooy mujj am da ngeen di rencontré wu da ngeen di daje su ngeen daje yéen ñaar connexion day am léegi bu connexion bi amee da ngeen di jaxasoo loolu mooy xulul mooy léegi yéen ñaar dem ngeen ba yàlla di wàcc yow jaam bi yaa ngi ci fanaa dafa am lu ñu tuddee fanaa ci xam-xamu tasawuf mooy da ngay dem ba am insertion totale ci yàlla da ngay jeex ba yëg ne yow nekkatoo jeex nga tàkk yaa ngi ci marxalatu fanaa fanaa googu mooy da nga yëg ne daa am fooy toll sorewut ak li bouddhiste yi def da ngay concentré wu ba yëg ne yow concentration bi nekkatoo léegi bu la nit doon dompat sax dompat joo yëg dompat gi benn waaye mën na laa fekk fi nga ne concentré wu di def say prière ak say nangam waa ji dompat la wala am ku yuuxu fii wala ñu dóor bomb sax boo paree ñu ne la yëg nga ko nga ne yëgoo ko boo ko yëgul ñu ne la voilà léegi yow àgg nga yaa ngi ci beneen étape niveau boo xam ni yow fi nga toll foofu lañ soxla woon mooy da ngay dem ba génn univers bi yaa ngi toog fii ci sa ci sa jëmm nii mais sa esprit yéeg na nekkatoo fi dama ciy bañ a xuus torop muy diis ci bopp yi parce que c'est tellement philosophique te ay waxu dof la amul njëriñ su ko defee yow da ngay dem ba léegi da ngay yëg ne yow nekkatoo jeex nga jeex nga génn nga univers bi sa jëmm mi ngi fi mais sa esprit dem na esprit boobu dem day dajeeg yàlla muy ñëw boo defee yéen ñaar ngeen mélangé wu comme ñaari ngelaw yu daje. nga bu ngelaw jóge fi ngelaw jóge fi li ñu tuddee cellmer da ngeen di jaxasoo duggante yeen ñaar léegi ngeen nekk benn ngelaw ngeen léegi yow nga nekk yàlla yàlla nekk yow kooku mooy xulul doy waar la mooy allahu xalla xalla fi ibadihi yàlla dafa dem ba ba wàcc ba dugg ci jaamam bi ba jeex ci moom léegi su ko defee jaam bi day wax ni mais yàlla ju yàlla ju taxaw la wax ju doy waar loolu ci boppam wax jooju waxu kéeféer la mooy yàlla day mujj nekk mbindaafoon day mujj nekk jaam day mujj nekk nit yàlla day feeñ ci day def li ñu tuddee at tajalli day feeñ ci ay jaamam moo tax boo gisee dof wala nit ku sol ay yére ay sagar bu ko xeeb bu ko saaga parce que nit kooku ngay bu ko tuutal parce que nit kooku amaana yàlla moo génn moo feeñ ci moom wax yooyu ñuy wax moo tax léegi ñu ne la des fois nga gis benn waaye buy kii fii nga jàpp ne dof na dofut waaye dafa am dafa am niveau bu mu àgg boo xam ne yow àgg goofu bu ko jugé bu ko jugé léegi loolu soo ko toppee pensée boobu idéologie boobu soo ko toppee mooy dof yi nekk ci mbedd yépp bu leen kenn faji dañ leen bàyyi ñu continuer di dof moo tax mu ni wala naqul duñu wax kama taqulu alxululiya li ñu tuddee alxululiya moo ñuy wax ne yàlla day day wàcc ba jeex ci jaamam minal jahmiya ci benn benn groupe benn secte bu nekk ci lislaam ñu tuddee aljahmiya nga xam ne ku ñuy jahmu ibnu safwaan mooy seen kilifa nga xam ne moom d'origine juif la aussi ñëw dugg ci l'islam indi ay pensées yu doy waar mu ne innahu ma a xalqihi fil ard yàlla mi ngi nekk ak mbindaafoonam yi ci kaw suuf yàlla mu nekkee mbindaafoonam yi ci kaw suuf mooy yàlla jeex na ci jaamam yi jaam yi nga gis ñuy dox yépp ay yàlla yi ne ci kaw suuf lañ kon yàlla ngi ci kaw suuf wa nara mu ne ñun ahlu sunna dañuy gis ni anna man qaala zalika ku wax loolee fa huwa kaafir yéeféer la aw daal wala ku sànku la kañ lay nekk yéeféer mooy bu xamee gravité wax ji mu leer ci boppam ñu def ci moom iqamatul hujja su fekkee loolu amul dañ koy jàppee wax ji mu wax bis bu leeroon ci boppam yéeféer la mais comme leerul ci boppam kii daa réer dafa sànku daal lan moo tax li annahu wasafa allah parce que dafa melal yàlla ci melokaan boo xam ni bi maa laa yaliqu boo xam ne yellul ci yàlla min an naqaisi ci ay manquement ci ay manquement fii kuñ nit kuñ fi waxoon yow da ngay doublé wu wala kuñ fi waxoon yow sa papa day doublé wu sa papa day jékki-jékki doublé wu nekk ñaar man ma dem fële dikkaat ne la romb naa fële sa papa de nga ne ma doo bàyyi ñeme yàlla sama papa ngi ci kër gi nga ne ko non gis naa ko dafa dugg ci benn waay nekk moom yow nooy nooy def ak man ah ba ma tul tribunal lañ jëm boo ma ëppee doole sax duñ dem tribunal léegi yow loolu nangu woo ko sa papa sa papa moo nekk fee beneen waay moom laa dajal fële fekk sa papa toog mu ñëw nuyu leen sa papa moo toog nii nga ne waaw nga ne pourtant moom laa romb fee de nga ne ci naka nga ne dafa sa papa dafa dugg ci beneen waay nekk moom sa papa yow sa papa ngay wax ne dëmm la wala jinne la wala lan la doo ko nangu waa léegi yow loolu nanguwoo ko ci sa baay walillahi almasalul ala waaw yàlla nag moo gën a sell nga koy saxalal loo xam ne yow nanguwoo ko saxalal nit yàlla moo gën a sell ci loolu loolu soo ko waxee ci nit ñu jéppi la ñu xeeb la ngaa ngi tuumaal nit ki loo xam ni yellut fa kayfa nag boo ko waxalee ci yàlla subhanahu wa taala mu ne wonu mun dañuy gëm bi ma axbara bihi anhu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam dañuy gëm loo xam ne yonente bi moom moo ñu ko xibaar ci yàlla loolu bokk na ci comme lan mooy annahu nag moom yàlla yanzilu dafay wàcc kulla laylatin ci guddi gu nekk ila samaai dunia ci asamaanu asamaanu adduna mooy dernier asamaan bii nga xam ne moo gën a jege monde bi moo gën a jege suuf bi ñu nekk kañ lay wàcc xëy na ci moment bi nga xam ne yabqa dafay des sulusul layli ceer ceeru guddi al axiir bu mujj bi ceer bu mujj ci guddi gi yàlla ceer bu mujj ci guddi gi day wàcc asamaanu aduna dinaa si gën a ñëw fa yaquulu mu wax man yaduuni kan moo may woo fa astajiba lahu mu wuy ko ci ay soxlaam man yasaluni ku may laaj ay soxlaam fa utiyahu ma may ko man yastaghfiru nii kuy sàkku sama njéggal fa aghfir lahu ma daal di koy jéggal kon moment boobu moment wu nangu ñaan la moment diis yàlla sa soxla la te moment boobu moo gën a neex a nelaw nag wala déet ah moment boobu moo gën a neex a nelaw da ngay jékki jóg mel ni dañ la xëccaat téye la mais lan la mooy nit ki moo ci éduqué boppam yar yar boppam ba tàmm heure bi su jotee mu jóg yow da ngay gis koo xam ni su waree jóg jóg dem tukki tey dem aéroport jël vol dem des fois du sax réglé réveil mais affaire bi ñor na ko ñor boo xam ni dañ ne ko 6 heures du matin ne la fekk aéroport 4 heures mu tëb am na ko xam day defi concours day defi examen dafa postuler demande ñu war ko defal entretien du tardé lan la day jox affaire bi yitte yitte rek la boo joxee affaire bi yitte sa yaram yëg ko nga jox ko fulla jox ko fayda ah da ngay da ngay jël engagement ci respecté ko nit ki. boo yaree sa bopp ci teel a jóg tàmm teel a jóg ba boo guddee woon tëdd heure bi su jotee da ngay jóg parce que nit ki rythme boo xas ba tàmmal sa bopp rek da ciy wéy da ciy dox loolu lu mat a bàyyi xel la moo tax suñu borom kon heure boobu day wàcc léegi nag moom yéen da ngeen di analyser toujours kenn mën naa toog wax ni waaw yàlla moom day wàcc ci asamaanu aduna mais li nga xam ne mooy ceeru guddi bu Sénégal ceeru guddi dernière ceeru guddi bu Sénégal ak dernière ceeru guddi bu Amérique est-ce que ñoo bokk heure ñoo bokk heure bokkuñu heure dernière ceeru France ci guddi gi ak dernière ceeru guddi bu Gambie ñoo bokk heure léegi yàlla dernière ceeru guddi yooyu yu bëri yooyu yëpp nga xam ne tollawuñ nan la yàlla nekkee fii nekk fii nekk fee fu nekk mu wàcc fa du xel mën naa xalaat loolu léegi dernière ceeru guddi Sénégal ñu ne dernière ceeru guddi Sénégal mi ngi tàmbali 3 heures 25 léegi 3 heures 25 ba 5 heures du matin bi ba avant ñu julli fajar heure boobu mooy cee dernière ceeru guddi heure ci Sénégal waaw léegi yàlla day wàcc asamaan ordre na ci moment boobu yàlla day wàcc asamaanu àdduna ci moment boobu d' accord ñu ne waaw mais dernière ceeru guddi Arabie Saoudite ñoom minuit la minuit parce que ñoom 2 heures du matin la ñuy julli fajar kon minuit ah minuit moyen ba minuit ñoom seen dernière ceer ñëw na léegi yàlla war a nekk dernière ceer bu Arabie Saoudite ay vers minuit war a nekk dernière ceer guddi bu Sénégal ay 3 heures et quelques war a nekk dernière ceer bu France war a nekk dernière ceer bu États-Unis yooyu yëpp ñu la yooyu yow yaa am problème bi yow mais yàlla du nit déjà yàlla du nit nit moom moo nekk ci saal bi nekk ci saal bële nekk ci saal bële nekk université Ndar université Thiès nekk Bambey en même temps xanaa nga nekk comme gars yi bëri ay karaamaak am am na ñu ko mën am na ñu ko mën parce que Sénégal moom tout est possible am ñoo xam ne en même temps mën nañ nekk fu nekk boo demee ci tabaxaatu Shaaraani yi day nettali lu reetaan lu nee na am na kenn ci wólu yàlla yi daal di joxe turam fa am ajjuma bu jot gars yi julli ajjuma lu tolloog 1000 mosquées 1000 mosquées ci dëkk bi 1000 mosquées moom mosquée bi nga xam ne mooy mosquée principale am mu jiite fa ajjuma mais dëkk bi lu tolloog 1000 mosquées ga bi ñu demee julli juma ba ñibbisi kenn ku nekk laaj seen morom kan moo jiite seen juma ñu ne diw ñu ne déedéet diw diw suñ juma la jiite ñu ne moo jiite suñ juma yéen seen juma non moo fa jiite yéen seen juma moo fa jiite pendant 1000 mosquées ñu ne loolu moom dafa bokkoon ci ay ay kéemtaanam parce que wóolu yi la woon ci ay karaamam la bokkoon xam nga loolu waxi dof la benn nit bu mën a multiplier wu 1000 nekk ci 1000 mosquées en même temps en en même heure en même temps di xutba loolu xam nga ni ci ay sos la mën a nekkee waaye mënta nekk dëgg parce que nit nit mënul loolu nit mënul loolu kon yàlla subhanahu wa taala tëlewul loolu parce que yàlla du nit naka la ko mënee mbiram la domaine am la naka la koy defee domaine am la ki mu yónni la wax mu wax ñu ko dañ koy gëm texte la boo xam ne bu wér la dañ koy gëm weddi ko dalay tàbbal ci kéeféer parce que da ngay weddi li nga xam ni mooy ki yàlla yónni li mu ñëw saxal yonent bi du wax lu dul dëgg ah du wax ci bànneexu bakkanam wa nu'min dañuy gëm bi annahu subhanahu wa taala yati yowma almiaad lil fasli bayna al ibad yàlla day ñëw bésu yowma alqiyam yowma almiaad mooy bésu yowma alqiyam le jugement dernier lil fasli pour juger pour àtte bayna al ibad diggante jaam yi ku defoon lu baax ñu fay la ku defoon lu bon ñu fay la ku tooñoon nit ñu jël àqam daal di koy fay ku delloo ko àqam ci ki nga xam ne dafa jëloon àqu nit ila axirihi ba àtte yi jeex ñu war a dem fii dem ñu war a dem fi la dem yàlla day jóge fi mu nekk ñëw day ñëw kon ñëw almaji sifa la ci ci sifaatu yàlla yi ci ay melokaanam la lu koy tegtale li xawlihi taala wax borom bi yàlla mu ne kallaa déet isa dukkatil ardu dakkan dakkan yàlla mu ne suuf si bu ñu ko jëlee tas ko ba mu tas wa jaa rabbuka yàlla ñëw yàlla daal di dikk wal malaku ak malaayika yi safan safan def ran malaaka yi ran malaaka yi naka la ñuy ranee mooy doomu aadama yi dañuy taxaw nit ñi nit ñi dañuy taxaw yàlla ne jinne yi seer na leen nit ñi jinne yi seer na leen yàlla ne malaayika yi def leen ran ngeen wër nit ñi ngeen ngeen seer na jinne yi malaayika yi seer na jinne yi yàlla ne ku mën a rëcc ndax am na ku mën a rëcc jéemal rëcc kenn du jéem a rëcc parce que kenn mënu ko nit ñi dañuy taxaw jinne yi wër leen jinne yi malaayika yi wër leen seer na leen loolu place bu mat a bàyyi xel la moo tax fii ku fi nekk di lappi lapp yi bëgg a dal nañ toog seetaan rek diw garaat yi mu am ci yàlla waaw baax na nañ toog diw nangam ak nangam nañ toog rek yooyu yëpp yaa ko wax yàlla waxu mu ne wa ji a yow ma isin bi jahannam su ko defee ñu indi safara yow ma isin yatadakkarul insaan bés boobu nag nit ki day commencé di am regret di di di fàttaliku wa anna lahu zikra fàttaliku ba du ko fa jëriñ dara parce que foofu bésu jëf la bésu jëf la naan ay aka neexoon ma def li aka neexoon du ma def li aka neexoon ma def li aka neexoon du ma def li aka neexoon yooyu yooyu du fa jëriñ loolu ay suwe kese la te yowmal qiyaam ay suwe du fa jëriñ jëf moo fay jëriñ amoon nga temps largement temps bu doy sëkk pour jëf jëfu ko kon yàlla dafay ñëw naka lay ñëwee xamuñu ko wa nu'minu dañuy gëm bi annahu na ko yàlla taala mu kawe mi faalun lima yurid yàlla day def lu ko neex lan moo tax yàlla kenn moomu ko lu ko neex def yàlla moo am sañ-sañ bu toll ni liir bu nekk ci biiru yaayam juddoogul mu faat ko loolu kan moo ko sañ ku sañ loolu kan moo ko sañ yàlla moo ko sañ yàlla moo sañ nit jàng jàng ba sonn préparé examen nga ñëw mu ne la amoo fa'aalun limaa yuriid lu ko neex def wala déet keneen sañu ko bu fekkoon yow ko keneen ku dul yàlla moo la def loolu da ngaa kër këri këri di wut benn diplôme wala benn examen benn waaye xañ la ko ba motu dina leen àtte mais suñu borom mooy mooy def lu ko neex te kenn mënu ci dara lu tax dafa am ay xikmaam yu tax dafa am dafa am ay xereñte dafa am yu tax mu ne woon nu'min dañuy gëm bi anna iradatahu nawaani li nga xam ne mooy nammeelu yàlla nammeel iraada nammeelu yàlla bëgg-bëggu yàlla nawaani ñaari xaaj la bu njëkk bi mooy iraada kawniya mooy bëgg boo xam ne bëgg bu bëgg bu yàlla di def la boo xam ne mooy cosaan ci moom mooy nature ci moom nga xam ni boobu jotewut ak dara diine mais boobu ci ni yàlla bindee àdduna ni mu war a doxee foofu la ko yàlla dugal mooy kaw nii yaxaw boobu dafay am bihaa foofa lépp lu fa yàlla bëgg day am muraaduhu la yàlla bëgg wala yalzam an yakuna mahbuban te la te li yàlla namm foofa ba def ko fa dogal ko fa yàlla da koy namm dogal ko fa te yàlla mën na kaa bañ a bëgg parce que loola mën naa bañ a baax wéyalati bi maanal machia loolu mooy tolloog coobare yàlla coobare yàlla mooy li yàlla namm mu am li yàlla dogal mu am yàlla li mu dogal mu am mën na kaa bañ a bëgg kan moo dogal kan moo dogal ak kéeféer am kéeféer kan moo ko dogal mu am man wala yéen yàlla est-ce que yàlla bëgg na kéeféer wala yarda li ibadihim al kufr yàlla du gërëm mukk ku koy ku koy weddi yàlla gërëmul ak kéeféer te pourtant moo ko dogal ki naan sàngara kan moo dogal mu naan sàngara yéen a ko dogal wala man ki agressé kan moo dogal mu agressé ki bàyyi ba guddi gars yi di nelaw mu yéeg miir dem sàcc kër jàmbur wekki antenne parabole yi wala écran plan yi wala mu sàcc ay tablette wala yenu xaalis dem wala tekk ay xaru jàmbur yóbbu sàcc gi moom moo ko jëf mais kan moo ko dogal ku dogal mu sàcc yàlla est-ce que yàlla bëgg na sàcc déedéet kon loolu mooy dund doomu aadama yi ni mu bindoo yi nga xam ne suñu borom da ko fiy dogal da koy da koy décréter mu war a am yooyu yëpp yàlla moo ko décréter mu am mais moo ko décréter mais bugg ko bu dee nag wàllu diine wàllu diine lépp lu ci yàlla dogal ci diine décréter ko yàlla daf koo bëgg bu dee ci wàllu dund gi c'est pas forcément lépp lu yàlla décréter da koo bëgg ci côté dund leer na mu ni walaw shaa ka qawli taala comme waxu borom walaw shaa allahu bu neexoon yàlla su ko sooboon maqtatalu maqtatalu nit ñi duñu reyante walakin allah waaye yàlla yafalu maa yurid mooy def lu ko neex mooy dogal lu ko neex yàlla moo dogal nit ñi di reyante des fois guerre am xeex am diggante jullit nekk yéeféeri des fois nit ñi ci seen biir ñu reyante les fois mbiru diine la des fois mbiru adduna la mbiru bakkan mbiru bànneexu bakkan mbiru caaxaan ak yeneen yàlla moo dogal ñu reyante mais est-ce que yàlla bëgg na bëgg na nit di rey nit loolu mat a bàyyi xel moo tax mu ne wa shar'iyya beneen bi mooy dogal yi mu dogal ci wàllu diine nga xam ne loolu mooy iraada shar'iyya wala qada shar'i laa yalzamu biha wuquul muraad wala yakul muraadu fiha illa mahbuban foofa li fa yàlla dogal du forcément foog mu am mën naa am mën naa bañ a am waaye lépp lu fa am lépp lu fa yàlla dogal mu am suñu borom da koo bëgg ka xawlihi taala comme waxu yàlla wallaahu yàlla yuri dafa bëgg an yatuuba aleykum yàlla dafa bëgg yàlla dafa bëgg di tuub ci yéen maanaam ngeen tuub mu nangu seen tuub boo tuubee kan moo dogal nga tuub ah yàlla yàlla bëgg na nga tuub wala bëggul nga tuub yàlla bëgg na nga tuub wala bëggu ko yàlla bëgg na ko boo saraxee ko dogal nga sarax yàlla bëgg na nga saraxee wala bëggu ko bëgg na ko lan moo tax loolu dogalu diine la lim dogal ci yi nga war a def ci wàllu diine bokkut ak li nga xam ni dafa génn diine nekk ci wàllu nature bi ci wàllu dund gi ak lu ko laal wa nu'min di dañuy gëm bi anna muraadahu lkawni wa shar'i taabiun li xikmatihi yàlla lépp lu mu dogal lu war a am ci dund gi nga xam ne sax bëgg ko ak lépp lu mu dogal ci diine mu war a am te yàlla bëgg ko mu ne loolu lépp dafa topp xereñceefu yàlla lu tax yàlla dogalee ko noonu kenn xamu ko moo ko xam fa kullu ma qadaahu kawnan lépp lu yàlla dogal ci wàllu dund gi aw taabada bihi xalquhu shar'an wala yàlla sàkku mbindaa foona mi jaama ko ko ci wàllu sharia def ko fa innahu li xikmatin daf koo def ngir ab sagesse ngir ab xikma wala wafqil xikma te dafay loola dafay dëppoog xikma ba sawaan alim na moo xam xam nañ ko min ha loola maa naalamu lañ ca xam aw ta xaasarat wala dafa tële uquul naa suñuy xel an zalika ca loola mu ne alaysa allahu bi ahkamil xaakimin ndax yàlla nekkul ne moo gën a xam li nga xam ne mooy attekat yi wa man ahsanu min allahi hukman ndax am na ku gën a rafet yàlla dogal ak atte li qawmin yuqinoon pour nit ñoo xam ni xam nañ lu wér xam nañ lu leer loo xam ne yaqin la wa nu'min dañuy gëm ba anna allaha taala yuhibbu awliyaahu yàlla bëgg na ñi nga xam ne ñooy ay waliyam wali yu mooy lan mooy ku féete ak yàlla ku ànd ak yàlla ku nekk ci li yàlla nekk awliyaa awliyaa pluriel singulier bi mooy waliyun benn pluriel bi nekk awliyaa wali awliyaa wali suñ ko waxee mooy nit ku sell nit ku baax nit ku ragal yàlla kese mais sénégalais fexe nañ ba déformé ko déformation bi li ko indi mooy lu gën a bëri ci wàllu suufiyanke yi buñ naan diw wali yu la mooy boo leen waxee lu tax mu nekk wali yu ñu ne xuus na géej daa jaar ci biir géej gi jàll ndax nit daw nekk wali yu ñu ne dafa dee del siwaat dekki séeg soxnaam soxna si am doom mu del ëmb mu delluwaat bàmmeelam aha kay loolu lépp am na Sénégal looloo tax diw nekk wali yu ñun fii Sénégal dañ ko fiy wax koo xam ne li tax li tax moom mu yéeme mooy waajuram gaañu na pendant sept ans dellusiwaat jékki-jékki jabar ji ëmb ginnaawam xam nga kooku ëmb ginnaawam dafa def dégâts mais pour ñu pour ñu wutal ko ay lay ñu ne waaja moo jógee ci bàmmeel bi ñëw jotewaat ak moom waaye boo jógee bàmmeel ñëwaat fii àdduna ni mu neexee ngay demaat di tëddaat ci biir pax doo toogaat fii di lekk ceeb di naan di naan si neex yi ba ci kanam waaye nga dem dugaat ci wax tëddaat fi léegi bi ngay dem dañ laa yóbbu woon mais bi ngay dellu ku la yóbbu ku gasaat pax mi dugal la ci yooyu yëpp ay waxi dof la ñu fexe ba gëmloo ko ay nit kon sunu borom yuhibbu awliyaahu dafa bëgg ay waliyam dafa bëgg ay waliyam waliyu yàlla daf ko firi ci ñaari aaya in awliyaa'uhu illa al muttaquun yàlla ñen ñooy walu yàlla yi mooy ñi ragal yàlla mu delluwaat ne ala inna awliya allahi laa xawfun alayhim wala hum yahzanun walu yàlla yi amul lu ñuy tiit amuñu lu ñuy ragal yàlla ñen la allazina amanu wa kaanu yattaqoon moo ñi gëm yàlla ragal yàlla kon boo gëmee yàlla ragal yàlla wali yu nga yéen ñi ñëpp ay wali yu ngeen mais nit ñi dañoo rawante dañoo rawante ci ñu nekkee wali ku la gën a ragal yàlla gën laa sori bàkkaar moo la gën a am wali moo la gën a nekk wali ci yàlla mais baatu wali yu diw wali yu yàlla la wali yi Sénégal quelque wali yi ñu am da ngaa xam ñaata lañ toll ba nga naan quelque jamono jii moom wali yu amatul kan moo la wax wali yu amatul wali yu jeex na kan moo ko jeexal kan moo ko jeexal yàlla melokaan bi mu joxe in awliyaahu illa almuttaquun wali yàlla yi mooy ñi ragal yàlla ku ragal yàlla wali yàlla la mais wali boo xam ne da ngay bokk ci famille sàngam pour nekk wali wala foog nga yor ab sant benn sant pour nekk wali loolu amul ci diine foog nga jege diw wala nga sori diw pour nekk wali loolu amul ci diine foog nga bëri ay miracle su fekkoon bëri miracle ay tax a nekk wali kon seytaane wali la iblis wali la iblis kan moo ko ëpp miracle iblis ñaata ñaata année la dund. xam ngeen ku gën a gudd fan ci monde bi ah kan la Iblis du mook suñu maam Adama ñoo fi nekkoon ana maam Adama ah dem na ana Iblis dem na lan moo ko fi bàyyi yàlla moo ne ko woon innaka minal munzarin daf ko waxoon bàyyi ma fi ilaa yawmi yub'asun bàyyi ma fi ba keroog ngay dekkal jaami yàlla na ko bàyyi naa la fi may naa la ko miracle bu gën a kéemtaane boobu gis ngeen ko yéen koo xam ne depuis créature du monde ba léegi ba yàlla waxee kaay su jutal suñu maam aadama nga bañ yàlla génnee la dàq la ne la rëbb naa la nga ne ko d'accord aadama moo tax nga ne di nga ma yóbbu safar dinaa jéem ci moom lu ma mën mu jéem ci aadama ba lekk loo ko ci garab gi ko yàlla tere woon ci aajana yàlla wàccee aadama ci aajana indi ko ci kaw suuf mu topp aadama aadama tuub yàlla jégal ko mu xam ne aadama rëcc na ko mu ne yàlla njabootu aadama gi dinaa ci récupérer ñi mu wéttali safara la aqudanna lahum sirataka almustaqim dinaa leen dévier sa yoon bu bu jub bi ci la droiture dinaa leen ci dévier yoon bu jub bi di siratal mustaqim damay toog ci yoon bi ku ñëw mën a la saa waay fee la de fi nga jël nii du noonu da ngaa réer jëlal bële ku ñëw mën a la jëlal bële di leen dévier bañ sànku ma am mbooloo mu mu wéttali safara man kese du ma lakk il faut ma am ci njabootu aadama ñoo lakkaale ak man iblis si mission boobu lay dox nekk fi moom da lay gis yow doo ko gis loolu du miracle iblis kon waliyu la bu dee miracle mooy tax a nekk waliyu mooy dox ci biir géej wala dox ci ngelaw li ci air bi ah wala ñëw fekk safara bu tàkk nga dugg ci génn loolu lay tax a nekk waliyu kon iblis waliyu la mais mais wilaaya duñ ko xam ci ay xar baax mais ci ragal yàlla la loolu ñu bàyyi ci xel parce que am na yoo xam ni xar baax yoo xam ni nit mën na ko fekk ci ci ay ay tappale lay def ay naxaate léeg-léeg ay jinne lay jëfandikoo léeg-léeg ay jinne lay jëfandikoo loolu ñu bàyyi ci xel moo tax mu ni qul in kuntum tuhibbuna allah yàlla day bëgg li mu bëgg a saxal fii mooy sifatul xubb moo tax mu ne bi anna allaha taala yuhibbu awliya yàlla day bëgg ay waliyam qul yàlla moo wax ci alquran waxal yow muhammad ne leen in kuntum tuhibbuna allah su fekkee da ngeen a bëgg yàlla fattabiuni man da ngeen may topp su ngeen ma toppee résultat bi lan la yuhbibkumullah yàlla bëgg leen yàlla day bëgg wala du bëgg nga ne yàlla du bëgg te yàlla moo ko waxal boppam yàlla day bëgg mais yàlla ni muy bëggee ak ni nit di bëggee du benn fa sawfa yati llahu bi qawmin yàlla su ngeen fi jaamuwul yàlla nekk ci lu leen neex yàlla amaana mu jëla leen fi indi aw nit ñoo xam ni yuhibbuhum moom daf leen di bëgg wa yuhibbunahu ñoom ñu bëgg ko kon yàlla day bëgg wallahu yàlla yuhibbu bëgg na assabirin ñi nga xam ne dañ am patience dañuy muñ yàlla daf leen di bëgg wa axsitu na ngeen maandu inna allaha yuhibbul muxsitin yàlla bëgg nañuy maandu wa axsinu na ngeen rafetal inna allaha yuhibbul muxsinin yàlla bëgg nañuy rafetal kon a yi ñëw di wane ne yàlla day bëgg kenn xamul nu mu toll wa nu'min dañuy gëm bi anna allaha taala yàlla mu kawe mi yarda dafay gërëm ma sharaahu li nga xam ne daf koo yoonal mel amaali ci ay jëf wal aqwaali ay ak ay wax lépp lu yàlla digle ci ay wax ki jëf yàlla bëgg na ko gërëm na ko waaye wa yakrahu yàlla dafay dafay bañ yàlla dafay bañ maa naha anhu lépp lu yàlla tere nga xam ne ay bàkkaar la yàlla bëgg ko ku ko def yàlla da ko da koo bañ bañ na jëf ji min ha loolu bokk na ci li yàlla bëgg ak lim bañ yàlla nee na in takfuru su ngeen weddee fa inna allaha naka yàlla ganiyun ankum yàlla doyloo doyloo na leen yéen soxlawu leen wala yarda te yàlla du gërëm li ibaadihi ñeel jaamami alkufra ak weddi ak kéeféer wa in taskuru su ngeen sante yàlla ci ci xéewal yi mu leen defal yardahu lakum yàlla dina leen gërëmal loola kon yàlla day gërëm walakin kariha allahu imbiathahum fa thabbatahum wa qila qudu ma alqaidin mu ne yàlla dafa bañ walakin walakin kariha allahu yàlla dafa bañ ci yéeféer yi ak naafiq yi yàlla la bañ mooy in imbiathahum mooy seen tergiversation yi ñu doon def gëmuñu gëm gu leer weddiwuñu weddi gu leer ñoom naafiq yi te lislaam da ngay dugg mbaa nga génn mais dugal benn bopp di yórlu tànk yi ne ci biti amul wala nga dugal benn tànk benn bi ne ci biir benn bi ne ci biti amul dugg mbaa génn naafiq yi nag dugg ñu génn ñu seen noonu ñu doon def di tergiverser yàlla mu ne yàlla loolu leneen bañee seen dengi dengi gi dugg ñu génn ñu yàlla jëf jooju la bañ te jëfu naafiq la mu ne fa sabbatahum yàlla écarté leen wa qila qudum alqaidi ne leen toog leen fële ngeen ànd ak ñi nga xam ne seenu toogaay ci ci ak naafiq ak kéeféer leer na féete na boor warut mi dañuy gëm bi anna allaha taala yàlla mu koy am yarda dafay gërëm an alladina amanu ñi gëm wa amilu salihat jëf-jëf yu baax yi yàlla daf leen di gërëm yàlla day gërëmaate kon bokk na ci sifaatuhu mooy arrida radiyallahu anhum yàlla gërëm ne leen ñoom waradu anhu ñoom ñu gërëm ko dalika liman xashiya rabba loolu ki muy nekkal ki yàlla lay gërëm mooy ki ragal boromam wa nu'min dañuy gëm bi anna allaha taala yaxdab yàlla day mer suñu borom day mer mais yàlla ni muy mere nuroo wut ak ñu nit di mere xam nga nit bu meree moom day ñàngal ba pare day noppi di wax lu bëri bëri day xonq sax léeg-léeg ila axirihi nit noonu lay mere mais yàlla noonu lay mere soo ko soo ne waaw nga wax lu dul dëgg parce que amoo ci connaissance musoo gis yàlla mer xamoo nu muy mere. mais day mer day mer naka lay meree xamuñu ko point yaxdab kon yàlla day mer ala man yastaxiqul xadaba koo xam ne dafa mérito dafa méritoo yàlla meram minal kaafirin ci yéeféeri wa gayrihim ak ñu dul yéeféeri c'est-à-dire naafiq yi yàlla wax na ci suratul fatha inna fatana rak fatha mubina mu ne adannina billahi zanna saw ñi nga xam ni dañuy am njort bu ñaaw ci yàlla c'est-à-dire ñoom wóoluwuñu yàlla gëmuñu yàlla seen njort ci yàlla rafetul dañuy dute ci yàlla di sikki sàkk ci moom ay mauvaise pensée lañ am ci yàlla za mooy zanna saw yàlla mun a ñooñu am ay mauvaise pensée ci yàlla alayhim daairatu saw yàlla dina wàccee ci ñoom lu bon wa ghadiba allahu alayhim ba pare yàlla mere na leen parce que yàlla bëggul kuy am ci moom ay mauvaise pensée kuy am ci moom ñaaw njortu njortu gu bon yàlla bëggul loolu walakin yàlla waxaat ne walakin na waaye man sharaha bil kufri sadra képp koo xam ne dafa ubbil dëndam dafa accepté ak kéeféer ci dëndam nangu ko ku nangu ak kéeféer képp ku ko nangu lan la fa alayhim ghadabu min allah kooku yàlla koy mere walahum azabun azim te ñooñu nga xam ne dañoo accepté ak kéeféer à cœur ouvert nangu ko ci seeni xol walahum azabun azim dañuy am mbugal mu métti bu leen yàlla di mbugal parce que kéeféer dañ ko waroon a rejeté ñoom ñu accepté ko wanu umun dañuy gëm bi anna allaha taala na yàlla mu kawe mi lillahi taala nekkal na yàlla mu kawe mi wajhan kanam kanam mawsuufan bil jalal kanam goo xam ni kanam gu tedd la wal ikraam kanam gu bil jalal kanam gu màgg la wal ikraam kanam gu tedd la gu noble lan moo koy tegtale yàlla indi na ci ay aay yoo xam day wane ne yàlla am na kanam yàlla bi mu ne dafay jële lépp wa yabqa wajhu rabbika yàlla kanamam la joxe exemple wa yabqa dafay des wajhu rabbika kanamu sa boroom zul jalaali kanamam googu nga xam ne mooy gi màgg wal ikraam yi mooy gi tedd loolu la ñu tuddee ci balaafa itlaaqul kullu wala itlaaqul juzu wa iradatul kull mooy nga tudd lenn fekk lépp nga jublu yàlla kanam la wax mais tekkiwul ne yàlla dafay jóge wala lépp dafay jóge ba mu des kanamu yàlla kanamu yàlla dafay des mais kanam gi dafa représenté jëmmam yépp dafa représenté jëmmam yépp wanuuma dañuy gëm bi anna lillahi taala yadayni yàlla am na ñaari loxo karimatayni ñaari loxo yoo xam ne karimatayni yu tedd la azimatayni yu màgg la yàlla wax na bal yadaahu ñaari loxo yàlla yi mabsuutataan dañoo tàllalu yunfiqu yàlla dafay dafay dafay dafay joxe kayfa yasha comme nu mu ko neexee lii suñu borom daf ko waxoon di tontu ñan di tontu yahudi juif yi yahudi dañoo ne yadullahi maglula yàlla mu ne xullat aydihim wa lui wa luinu bi ma qaalu ñu ne yàlla fan nay ba loxo yàlla dafa banku ci ginnaaw yahudi sax wax nañ ne yàlla am na loxo li ñuy kàccoor yépp nangul nañ yàlla am na loxo am ay kuréel yu ñëw ci lislaam ne ñoom yàlla amul loxo lu tax ñu ne yàlla xanaa dangaa rep boo ne yàlla am na loxo dangaa bëgg wax ne yàlla comme nit la mel parce que nit moo am loxo kat moo wax ne yàlla loxo loxo nit yàlla ni loxo nit la mel xanaa yow yaa ko wax yàlla am na loxo rek point loxo yàlla nu mu mel yow yaa ci jéem a dugg ñun jéemuñu cee dugg jéemuñu sax imaginer nu mu mel parce que xamuñu ko mais yàlla am na loxo lan moo tax yàlla am na loxo yàllaa ko waxal boppam yàlla bu fa ko waxutoon duñ ko gëm mais yàlla moo ne ci alxuraan bal yadaahu ñu ne déedéet yàlla da nga koy màggal sellal ko loxo kenn du ko saxlal yàlla parce que boo ko saxlalee yàlla day mel ni yàlla jëmmu nit la parce que nit a am loxo léegi au lieu nga ne loxo da nga naan kàttan loxo fu mu sox ci alxuraan rek kàttan nga koy firee au lieu nga ne loxo mais da nga naan force loolu loolu déviation la yàlla dafa yàlla mënta wax yàlla mën naa wax wala mënta wax léegi yàlla ne loxo ngeen noo yàlla bëggul wax loxo mais kàttan la bëgg a wax yàlla mënta wax kàttan yàlla moom mënul wax kàttan mënul wax force léegi yow yaa gën a xam lu yàlla wax yaa dàq wax yàlla yaa ñëw expliquer nit ñi ne yàlla bëggul wax lii lii la bëgg a wax yàlla moo bi moom indi fii moo bi placé wul moo bi la waroon a indi mais yàlla mënu ko wax léegi yow yaa ko mën a wax yow. loolu yéen a maanaam yow yow ku fi dàq wax yàlla la may nga mën a wax léegi yàlla mi may nit ñi ñu mën a wax moom mënul wax loolu xelu na logique na léegi yàlla mën naa waxal boppam léegi yàlla kon. fu loxo ñëw du firi du firi du firi kàttan de puissance wala force mais loxo lay firi loxo yàlla loxo yàlla lu mu mel xamuñu ko te yenn textes yi boo jéemee firee loxo kàttan vraiment da ngay am problème comme aaya bi bal yadaahu mabsuutaani ñaari loxo yàlla yi dañoo tàllalu nga ne ñaari kàttanu yàlla yi dañoo tàllalu kàttan bu tàllalu mooy lan kàttan bu tàllalu mooy lan léegi wasamaa banaynaaha bi aydin asamaan si dañ koo tabax ci suñuy loxo boo ko bëggee firee kàttan même problème bi ngay am inna lazina yu bàyyi woon ak innama yu bàyyi woon allah yadullahi fawqa aydihim ñi jaayanteeg yow yàlla la ñuy jaayanteel dafa mel ni bi ñu ñëwee di teg seen loxo yow muhammad ci sa kaw loxo dafa mel ni ci loxo yàlla lañ ko teg léegi boo ko firee kàttan nu muy demee du du marché du dox du logique du jub loolu moo tax loxo yàlla la ñuy wax bal yadaahu ñaari loxo mi mabsuutaan dañoo tàllal yàlla nayut yunfiqu kayfa yasha dafay joxe nu mu ko neexee wa ma qadarullah xaq qadri yàlla mu ne nit ñi wa ma qadarullaha estimé wuñ yàlla xaq qadri yi dëgg-dëgg estime dëgg-dëgg respect bi ñu ko waroon a jox effectivement dëgg la doomu aadama yi bu ñu xamoon yàlla respect bi ñu waroon a jox yàlla ak estime bi ñu ko waroon a jox kon dinañ ko ko jox mais joxuñu ko yàlla fii ngay dégg ku naan yàlla bu xeebee bu xeebee li ko waa Sénégal di jaamu mu ñàkk waa Sénégal lan lañ jaamu yàlla lu ñeneen dëkk yi jaamuwul yàlla Sénégal ngay dégg kuy menace yàlla ne day xeex ak moom bu ma yàlla moytuwul ma xeex ak moom xeex ak yàlla foo jëm xeex ak yàlla bëgg xeex ak yàlla am nga liggéey de yàlla nag moom seetaan na lu nekk nit def ko mu may mu jël temps am di la may mais yàlla xam nga bu la jàppee doo rëcc moo tax moom yàlla yàkkamtiwul bu doon nit nga fiy menacé ne ko yow boo moytuwul dinañ xeex day jël day jël day jël ay mesure am pare la di la xaar wala balaa ngaa wax mu ñëw bett la affaire bi jeex rek la affaire bu féete boor mais yàlla moom mënoo ko rëcc li wolof di wax wiiri wiiri jaari ndaari waaw danay xaar ndaari yàlla dina la xaar di nga ñëw léegi boo ñëwee ba mu ne leen nit ci téye la ngeen daje léegi nga xeex ak moom la téye nga xeex ak moom loolu moo tax yàlla ne dëgg-dëgg respect bi ñu waroon a jox yàlla joxuñu ko ko estime bi ñu ko waroon a jox joxuñu ko ko parce que ñu ngi jël ay loo xam ne droit yàlla la ay yoo xam ne ay critère am yoo xam ne ay particularité am la ñu koy jox leneen lu dul yàlla wala lu ñu war a yaakaar ci moom ñu koy yaakaar ci kenn leneen lu dul moom borom bi subhanahu wa taala moo tax mu ne wa ma qadarullah xaqa qadri nit ñi joxuñu dëgg yàlla estime bi ñu ko waroon a jox wal ardu suuf si jamian mboolem suuf si nga xam ne fële dafa wax ne ida dukkatil ardu dakkam dakka suuf si dañ koy tas waaye kañ la lii moo koy jiitu mooy dañ koy xabd dañ koy lem ba pare wal ardu jamian suuf si yëpp suuf si juróom-ñaari suufu monde bi yàlla jamian yëpp xabdatuhu yàlla daf koy ngëpp téye ko comme ni ñuy téye basang yowmal qiyaam bés penc wa samawaat asamaan si matwiyaatun yàlla lem ko bi yaminihi ci ndeyjooram subhanahu sell ñeel na ko wa taala moom yàlla bu kawe mi amma amma yushrikuun ci mboolem li ñu koy bokkaaleel wa nu'min dañuy gëm bi anna lillahi taala aynayni yàlla am na ñaari bët isnatayni ñaar gis nga dafa wax aynayni isnatayni waxul aynayni isnayni parce que baatu bët ci arabe féminin la en arabe en arabe bépp membre boo xam ni ci day nekk ci yaramu nit ba pare membre boobu deux la en arabe mot boobu day nekk au féminin au lieu de au masculin bët bët nit ñaata la ci am benn wala ñaar ñaar nopp ñaar loxo ñaar tànk ñaar paxi bakkan ñaar loolu moo tax yooyu ci arab moo yooyu soo ko utiliser en arabe day nekk au féminin baatu yad ci arab féminin la gis nga yadullahi waxul maxluul maxluulatun loolu mooy wane ne féminin la dañ koo jigéenal moo tax mu ne ay nay ni is na tey ni moo tax baatu is na tey ni bi am ta waxul is nay ni mu ne mu ne is na tey ni yàlla am na ñaari bët waxul xaqiqa yi ni parce que mu sanna mu annas la mu ne xaqiqa tey ni ñaari bët yoo xam ne yu réel la dëggantaan bët la yu ji yoo xam ni yu yu yu dëppoo ak màggaayam la te bët yooyu duñ ko nuróoleeg bëtu dara bët yu boo xam ni yu yu yu dëppoog jëmm ak màggaayu yàlla la soo fi nekkee naan bët yi nii la mel nii la mel yaa ngi wax loo xam ne amoo ci connaissance parce que détail yooyu alxuraan joxe wu ko ci kon bu ko ci joxe yow amoo ci amoo ci connaissance mais gëmal la ay bët la yàlla moo wax nuux ne ko wasna'il fulka bi ayunina wa wahyina yàlla dafa yónni yonent yàlla nuux rek ne ko defaral gaal parce que yàlla dafa xamoo ay nitam dinañ ko weddi nuux toog di defar gaal gaa yi ko xorom mu naan ko nuux sa gaal gi bu paree nga wax ñu fu fu muy daw dëkk boo xam ne amul dex amul géej ngay defar gaal nu ne leen sama yoon nekku ci yàlla ma sant ma defar gaal man dinaa defar su paree yàlla dina ko jox ku mu daw effectivement bi gaal gi paree yàlla jox na ko fu mu daw moo tax mu ne ko wasna'il fulka defaral gaal gi bi ayuni naa ñu ngi lay gis ak suñuy bët wax yi naa ñoo lay wax yu noo koy defaree aussi moo tax nuux yàlla moo ko jàngal nuux mës a mës ta jàng menuiserie mais yàlla moo ne ko jëlal matériel bi jëlal bi daajal fii dóoral fii wékkal fii koleel fii seereel fii nuux defar ba gaal gi pare gaal googu dafay sophistiqué de wala déet moo tax gaal googu résister ndox mi li muy foor foor gaal gi daal di koy résister parce que suñu borom moo ko dicté ni ñu koy defaree kon yàlla am na bët aay boobu tudd na fi bi aayuni naa te pluriel la indi suñuy bët mais xadis moo ñëw tënk ne yàlla ñaari bët la am mu ne wax qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yonente bi alayhi salatu salaam mu ni xijaabuhu an nuur mu ne yàlla li nga xam ne moo ne ci kanamam baare ko leer la law kachafahu leer boobu nga xam ni moo ne ci kanamam su ko yàlla muri woon dindi ko la axraqat sabaxaatu wajhihi mantaha ilayhi basaru mu ne li nga xam ni mooy bàyyeekoo ci kanamam ci leer googu dafay lakk lépp lu yàlla xool da koy lakk min xalqi ci ay mbindaafoonam duñu àttan lumière boobu di bàyyeekoo ci yàlla lépp lay lakk lépp lépp lay lakk moo tax lumière boobu moo taxaw ci kanamu li yàlla di xool ba nga xam ni bu ko yàlla dindi woon rek yàlla lu mu xool ci àdduna ci mbindaafoonam yi loolu dafay lakk gis nga fi yonent bi saxal na basaruhu basar mooy bët kon sunu borom am na bët mu ne wa ajmaa ahlu sunna mu ne mboolem ahlu sunna yi dëppoo nañ an al aynayni naka ñaari bët yi isnataani ñaari ñaar la ala an al aynayni isnataani naka bët yi ñaar la wa yu ayiduhu li koy gën a dëgëral mooy xawlu nabi waxu yonente bi salaa sallam fi dajjal ci masihu dajjal mu ne innahu aawa masihu dajjal day ñëw génn muy créature bi gën a terrible bi yàlla bind dafay génn ci li nga xam ne mooy fin des temps wala fin du monde su génnee day ñëw ne moom day revendiquer ne moom masihu dajjal yàlla la yonent bi alayhi salaam mu ne waxul dëgg day fen du yàlla mooy ni ngeen koy xamee mooy moom dafa patt benn bët la am benn bët la am ci jëmam ci kanam gi te yàlla amul benn bët ñaari bët la am moo tax masihu dajjal bu mu leen nax du yàlla mu ne innahu aawar moom dafa patt benn bët la am wa inna rabbakum laysa bi aawar te yàlla pattul ku pattul lu mu lu muy tekki mooy ñaari bët nga am xadis boobu ci la sukkandiku boroom xam sukkandiku wane ne kon masiixu dajjal dafa nekk koo xam ni benn bët la am waaye yàlla kon ñaari bët la am parce que yonent bi nee na moom yàlla nuróowut ak moom waaye day woote woon yàlla la te moom dafa patt benn bët la am kon yaakaar na dañuy taxaw foofu li fi ñëw ci ay laaj bu fekkee am na incha allah ñu jëm ko tontu.
yenn laaj yi ñu gaaral ko oustaz yenn yi ñu xaar ci yeneen dars yi incha allah oustaz ki doon laaj démb bi ci darsu démb bi laaju woon mooy bi ngay wax ci alxaybu da wax ni yàlla suñu borom subhanahu wa taala moom rek moo xam kumpa waaye joxoon nga ci exemple lu mel ne échographie mu ne foofu da ngay gis ne nit ñi dañ koy def léegi mooy léegi est-ce que nit ki def ki mu koy def loolu dañ naan loolu warta dagal parce que day jéem a xam-xam bu kumpa est-ce que mën nañ koo dugal ci loolu
graphi dafay dugg ci jéem a xam-xam lu kumpa déedéet échographie dugg ci jéem a xam-xam lu kumpa waane science la science la boo xam ni moom science bi dalay wax li mu gis yem fa li mu gisul mënu la ko wax yàlla moom mooy xel doomu aadama xel moomu doomu aadama da koy utiliser ci lépp loo xam ne da koy protéger ak lépp loo xam ne da koy fekk ak lépp loo xam ne day gën a yéwénal day gën a yéwénal nekkinam doomu aadama bi da koy da koy préparer nit ki may nañ ko mu préparer lépp lu aju ci dundam lu koy baaxal xam nga baykat bi nga xam ni nawet bi day waaj a ñëw nawet bi day waaj a ñëw mu dem ci tool bi àll bi dagg ñax yi nekk ci tool bi ak garab yi daal di koy ruuj est-ce que dañ naan ko yow da ngaa xam kumpa da ngaa xam day taw wala tawut parce que dañ koy wax loolu kenn du ko wax lu tax mooy li muy def ni dafa bokk ci liy baaxal dundam mooy aajowoo nañ saison bi saa bu jotee saison bi saa bu jotee ñu nekk loo xam ni nawet day jege si am na ay biddéew yoo xam ne bu ñu leen commencé gis ak climat bi am na commencé def taw dafay jege nga dem préparé léegi xam-xam dafa évoluer mais xam-xamu échographie amoon na fi yàgg na dafa gën a évoluer bu njëkk jigéen jigéen su ëmboon dafa am noo xam ne su ko doxee rek nit ñi dañuy xam ne kii ëmb na wala ay nelaw yu bëri yu koy dikkal wala am nu muy nelawee ñu xam ni dafa dafa toll ci diggante sans échographie am wala dara am na lekk yoo xam ne su jékki-jékkee bëggatu koo lekk bàyyi ko ñu xam ne dafa tollu diggante am na lekk yoo xam ne su ko lekkee wàcc ñu xam ne dafa tollu diggante am na ay façon douleur yoo xam ne su koy jàmbat ñu xam dafa tollu diggante léegoo leeg bu yooyu yëpp feeñul benn mag boo xam ne bu mag màgget bu ne ci kër gi benn mère mooy jël noppam teg ko ci biiram déglu teg ci biir bi déglu bu tegee ci biir bi déglu xam ne ku jigéen kii dafa ëmb mu ne ko ah yow am na lu nekk sa biir commencé nga am grossesse loolu nekkul xam-xamu nekkul jéem a gëstu kumpa mais dafa basé wu ci ay effet dafa basé wu ci ay recherche boo xam ne ci la basé wu ba gis nekkul gëstu kumpa ak naxaate mais dafa basé wu ci recherche boo xam ne bu wóor la bu palpable boo xam ne dalay jox résultat ñu dama dem ba jamono ñu créé benn benn appareil boo xam ni dafay nekk genre aluminium am bën bën fii am fii bën bën ñi nga xam ne xamoon nañ lu aju ci sage femme yi di ko utiliser sage femme yi dañ ko utiliser jël ko teg jël ko teg ko seen nopp teg ko ci biiru ku jigéen gi ba pare di bës biir bi dinañ xam ndaw si ëmb na beneen bi ëmbee dinañ xam ndax li ci biir bi mi ngi dund wala dundul dañuy bës di bàyyi suñ bësee bàyyi affaire bi def mouvement ñu xam ne mi ngi dund ñu jël teg teg boobu ñuy teg ñu xam ne biir bi mi ngi riir ñu xam ne li ci biir mi ngi nooy boobu science foofu la toll ñu dem a dem affaire bi di évoluer di évoluer ba am ay matériels yoo xam ne tey da nga koy teg ci biir bi gis li ne ci biir mu mel ni genre photo boo xam ne day photo li nekk ci intérieur biir bi appareil bi loolu lay def kon loolu xam-xam la boo xam ni dafa basé wu ci ay effet basé wu ci étude basé wu ci recherche bu mën a joxe résultat léegi dañu wax ne aussi dafa fiable 100 pour cent mais fiable la ci lu gën a bëri li muy wane des fois mu wane lu dul noonu des fois mu am tuuti erreur mais ci lu gën a bëri basé wu na ci gëstu ak xam-xam boo xam ne lim lay jox daf lay jox résultat boo xam ne day exact wala mu xaw a exact léegi loolu bokkut ak gëstu xam-xamu kumpa léegi kii jéem a wootewoo kumpa lan lay def ki jéem a wootewoo kumpa est-ce que noonu lay def day basé wu ci xam-xam bu scientifique ci lay basé wu déedéet. moom lan lay basé wu léeg-léeg ay naxaate la léeg-léeg ay tànd la ay naxaate léeg-léeg lan la basé wu ci ay jinne la ñu ko jox information ay seytaan fii ay ay ay ay ay lan ay sow rangé le fii ay lépp lu ñu war a naan mais ñu rangé le fële ay bière moom mu ñëw xool ci romb ko xool boisson gazeuse yi romb ko ñëw ci bière yi daal di taxaw léegi moom daa am ku ko téye di ko forcer ne ko far la force fii ngay taxaw dafa am ku ko téye wala moom dafa yëg ne am na benn choix bu koy orienté c'est-à-dire benn libre arbitre bu ne ci moom di ko orienté naan ko defal bàyyil defal bàyyil wala amut am na wala amut li la koy gën a wan mooy gis nga waa ji bu taxawee ci bière yi suy jël bière yi day xool gauche xool droite boo kenn gisul mu gaaw jël su ko jëlee da koy nëbb waaxu ba ñëw ci caissière bi taxaw boo ñëwee mu ne non non demal demal demal yàkkamtu ma demal yow nga jënd dem dem ba affaire bi libre mu teg ko ci taabal ji ne ko gaawal ñaata la parce que xam na li muy def moom intérieurement am na arbitre libre arbitre bu koy orienté boo xam ne ci conscience am mi ngi ko naan li ngay def nii baax na baaxul xam na ne baaxul moom mi koy def xam na ne baaxul. léegi kooku am na ci monopole wala amu ci monopole am na ci contrôle wala amu ci contrôle am na ci contrôle su ko neexoon mu reculer jëlaat affaire bi ne ko non bàyyil affaire dama koy bàyyi sax dem delloowaat affaire bi dem jël si mën na ko wala mënu ko am na choix boobu wala amu ko am na ko moo tax bu naanee sàngara bi yàlla da koy laaj yowmal xiyaam lu tax nga naanoon sàngara bi parce que mënoon ngaa reculer bañ koo naan wala déet moo naan jox misaal bu gën a leer soo génnee fii di jéggi tali bi booy jéggi tali bi ku dogal nga jéggi tali bi yàlla moo ko dogal wala dogalu ko mais da nga naan bon yàlla moo dogal ma jéggi tali bi damay ñëw rek waaxu dem ah da ngay xool gauche xool droite ba télé bi libre nga door a dem léegi yow amoo lu lay amoo lu lay lu lay lu lay orienté am na wala amul am nga choix wala amoo des fois sax tali bi libre nga dem bay dem gis na am na oto buy ñëw nga defaat choix reculer choix bi mi ngi fi wala néewu fi ku la forcé kenn forcé wu la kenn forcé wu la donc loolu lu ma ta bàyyi xel mais jékki-jékki dañ naan yàlla moo dogal lépp nit ki mënu ci dara ah yàlla bi mu dogal moom mënoo ci dara xam nga ko mais am na boo xam ne yow am nga ci choix amoon nga choix wu avancé wala nga def recul da ngay choisir le bon moment sax pour nga avancer wala nga reculer da ngay choisir le bon moment pour nga jël wala pour nga bañ a jël kon yaa ngi yëg ne kenn forcé wu la man maa def choix wu def lii fii kan lañ fi forcé mu dem série S wala série L defu leen woon choix def ngeen choix wala defu leen choix waaw ci biir S bi kii dem S1 kii dem S2 ah kii dem L prime kii dem choix boobu ku ko def wala dañ leen ko forcé da nga yëg ne yàllaa ko dogal rek ne man es laa def rek nga ne es laa def ñu inscrire la foofu comme ça noonu la demee ah demewul noonu des fois nga dem ba ci biir sax dem ba es bi jékki-jékki defaat choix da ngay génn foofu des fois nga dem ba université dem fac droit jékki-jékki comme fac droit première année bi day saf sap day métti parce que bi ngay nekk lycée ja amoo benn notion ci droit ah te loolu erreur la fii ci système d'éducation bi parce que droit doo ko jàng ci lycée da ngay jékki accès rek université ñu ne la droit ngi nii amoo ci benn notion moo tax ñu bëri di ci di cartouche di daanu léegi lan ngay def mooy nga ne fi ma dugg baaxul lan ngay def nga def choix ne xaaral ma demaat beneen fac day am wala du am day am choix boobu yow yaa ko def léegi def nga ko mais yàlla moo ko dogal mais ci biir dogal bi daf laa bàyyee sa choix waaw waaw.
xam naa question boobu moom kii day wax ni kàddu gi nan la ko mën a jaarale. mooy ñun kàddu gi ñu mën a mën a jaarale mooy ñu mën a wax yàlla doo ko kenn daal.
yàlla boo ko kenn daal nga koy dégg ñu ko wax mais loolu nan lañ ko mën a jaarale daal.
dafa am kàddu yoo xam ne ci charia dafa am lu ñuy tuddee dafa am kàddu yoo xam ne dafa wér ay expression yoo xam ne ci charia charia dafa ko affaire dafa wér am yoo xam ne expression yoo xam ne charia daf ko rejeté boo ko waxee rek day nekk bokkaale wala bàkkaar charia daf koy rejeté mais am yoo xam ni charia day wax al umuru maqasidiha yow mi ko wax loo ci jublu wax ji lan nga ci jublu soo waxee ñu xam li nga ci jublu bu baax ñu accepté ko bu fekkee li nga ci jublu baaxul dañ koy rejeté yàlla waxul kenn dara am na ñoo xam ne li ñu ci jublu lu baax am na ñoo xam ne li ñu ci jublu ay tappale la baaxul yàlla waxul kenn dara mooy yàlla dikkulu ci yow wax ak yow bu fekkee loolu nga ci jublu mooy yàlla ñëwul ci yow mii wax la dëgg la loolu dëgg la wala du dëgg yàlla ñëw na ci kenn ku nekk ci ñun ñi wax ak wax ak moom ah bu dee loolu lañ ci jublu mooy yàlla ñëwul wax ñu dara dëgg la mais yàlla wax naa ak ñun wala waxut ak ñun wax naa ak ñun ci ban canal ah ci kanaalu wax yu jaare ko ci yonent bi mu- ci alxuraan ak sunna wala déet kon yàlla wax na ak ñun mais dafa wax ak ñun ci ab kanaal kanaal boobu mooy wax yu wax yu mooy alxuraan ak sunna téereem bi ak yonentam bi kon yàlla wax na ak ñun wax na ak ñun ci kanaal boo xam ne ci la waxee ak ñun bu fekkee eh, côté boobu day nekk loo xam ne du wér bu fekkee da ngaa bëgg ne yàlla waxut jaami dara amul ko képp ku fi nekk di wax yaay wax lu la neex te la plupart ñi koy wax nag loolu dañ ci jublu parce que da ngay dégg benn waay buy waaraate naan ku def lii dem àjjana ku def lii dem safara lii bàkkaar lii du bàkkaar lii bokkaar lii du bokkaar lii bidaa lii du bidaa ñu ne ah gars yi dañuy wax rek yàlla waxul kenn dara ah wax ju yàqu la yàlla wax na kenn dara de yàlla wax na ci alquran wax na ci sunna te ñi koy wax la plupart lu ñu ci jublu mooy sens bu ne bu négatif boobu mooy yàlla waxu fi kenn dara ku fi nekk di wax yaay wax rek mais yàlla waxut ak kenn dara aha kay des fois sax dañ ciy yokk leneen dañ naan yàlla wàccul fii bay wax ak kenn dara yàlla wàccul fii ci aduna ba fi wax ak kenn dara yàlla wàccul ba fi wax ak kenn dara waaye am na ñoo xam ne wàccee na leen fi wax na ak ñoom ñu wax ak jaam yi wax na ak ñoom ñu wax ak jaam yi kon ñi koy wax tou- souvent li ñuy jublu mooy discours diine la ñuy bëgg di saboter discours diine moo leen soof ñu bëgg ko di saboter li ngeen di waaraate li ngeen di wax da ngeen ko war a bàyyi parce que yàlla wa- waxu leen ngeen wax ak nit ñi wala yàlla yónniwu leen pour ngeen wax ak nit ñi wala amu leen benn lu wér luy wane ne yàlla moo wax li ngeen di wax souvent loolu la ñuy jub su ko defee nag loolu wax ju yàqu la yàlla wax na ak jaamam yi jaara ko ci kanaalu wax yu muy alquran ak sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam lépp lu dagan foofu la ko waxee lépp lu araam foofu la ko waxee lépp lu baax foofu la ko waxee lépp lu bon foofu la ko waxee lépp luy tax jaam yi texe aduna ak àllaaxira foofu la ko waxee lépp luy tax jaam yi ñàkk a texe aduna ak àllaaxira moytuloo na leen ko te foofu la ko waxee kon yàlla wax na ak jaam yi waaw alhamdulilah